ma ne ko bu ñëwaa si kër mu ne ma jaroon na ma dellu Thiès mu ko bu fekk la Thiès mu ne ma ma dem ba Tambacounda ak waa Teera ca kaw ca kanam ndax ma jigéen na la toggal. saa hmm. ah, da nga woor. ah saa saa waaw baax na yàlla baax na comme dafa woor rek baax na. <laughs> saa jóg saa jóg du mbokk saa bu koy wax day mel nii dafa fekke ah mais mais vraiment ay ñu ngi jaajëfal partenaires yi ñu rappelé nag ay doomu Sénégal la ñu nekk fii ci réew mi créé fi ay emploi jàppale jeunes yi jàppale ñi nga xamante ni ñoo di seen waar mange mange mange bu ko faale yow xaaral eh, jox leen ñu euh, tampon eh, five ma jigéen bul xuloo yàlla baax na ay ca loo indi tey. moom day fàtte ni amagoo jëkkër lii ku ko dégg kii bu lay jaay di nga yéex a jar de. Mm-hmm. Ah? yàlla ay ca. bu doole ca la mu la baax na yàlla baax na amul benn <laughs> <laughs> ah, jaaxal. Ah? kii yow de booy jaay ma jigéen dina lamb yaay ma jigéen mere na la de ah tem la tem la <laughs> lan mooy tem teb faay rubrique tey loo indi ok d'accord tey aja <laughs> aja daañu daañu waxtaanee non tiituma de dafa dafa dama yaakaar ni dafa wax ni li mu wax noonu tem la. mu ah, ne ma koy laaj ndax temu lan. d'accord mais man dinaa ñëw fii di man suñu waa kër ndax xam nañ li may. togg ndax baax na wala baaxul. Ah, man de toute façon maa ngi leen di satisfaire si li may. waaw ayca def sax ñun. ayca ah, man kontaan nañ ndax li nga def kenn. voilà voilà. saa <laughs> bul yàq ma jigéen ma jigéen est-ce que mën nga ñëw ci tafaayal Sade ku mu xamal dégg nga. d'accord ajaratu tey daañu waxtaanee li nga xamante ne nii. fa dëgg yàlla. Euh, euh, série yi nga xamante ne nii si koor bi ñu ngi koy faral di gis mu bëri lool euh, ku nekk rek yaa ngi génne sa production ñu gis ni nag télé bu ci nekk rek am na ay série yoo xamante ne nii yaa ngi koy teg parfois sax mm. dafay dépasser dix bu onze série si benn télé. ñu gis mm. ne que bu ñu ko xayma lépp lépp si série yi daw ci biir koor gi yëpp ëpp na cinquante série mm. waaw mat na ëpp na ko sax ëpp na ko ëpp na ko sër yi bëri na lool lool sax ba jaaxal nit yi mhm. dañuy dem am nañ benn élément boo xam ne nii euh, ci sër yi la ñu xool ci quelque rek daal di ñëwaat kii bu yaroo ci biir ay nit moom. sa yoon nekku ci loolu de. Eh, xoolal ba nga sa baaraam wala la. ma ma ma. moo génn kër gi yow. Eh, eh, nga xam ne. nga xam ne kan du ma du ñaan. nga xam ne man. mais li la nii. non tos may ma lii non tos bàyyi. may ma lii bàyyi bàyyi sa loxo bàyyi. bàyyi maa la ko ñaan non bàyyi bàyyi bàyyi. maa la ko ñaan. naa ko bàyyi mu sonn de. non bàyyi ko non bàyyi ko. Ah, sant yàlla gis nga kii kii. bañ ko programmé ëpp na une semaine. waaw waaw waaw daal. xam nga yéen dóorkat yi nag. waaw nu mu tudd hôtel bi. Exil. Exil. Exil ak jàmm. na confortable. xanaa de yow si ñëwee nga. tey laa génn si pax boo xamante ni. waa dama génn rek. Ah. teg ba sama affaire yëpp baax. jaami tey yan ya yan ya foo demoon at yan nga indaa. yan nu ma an kay man dama bëgg yow nga sawar. voilà ajaratu mi ngi noonu te lu ma si gën a jaaxal mooy série yi yu bëri même personnage yi nga siy gisaat. waaw même boo xoolee série série ngañ bi hmm. euh, boo demee si beneen série dangay ngay gis comme genre kaaw mi ci nekk da ngay hmm. gis si série yu bëri dafay faral di nekk mi ngi ànd ak Saneex maa ngi ko gis tamit mu ngi nekkaat si beneen série à chaque fois rek même personnage yi ngay faral di gis ñuy ñuy ñuy jouer mbir mi te jàpp naa ni euh, euh, balaa yi ñuy def série bu nekk ñu def ko ku nekk def benn production boo xamante ne nii mu leer yow fii nga bokk nga def ko mu normal mais à chaque fois même nit yi ngay gisaat mu nekk loo xamante ni yow Sénégal dafay gën a yokk série te bu yàggee pour nga toog concentré wu mën a seetaan yëpp sax problème lay doon te parfois tamit da si gis ay kii yoo xamante séquence yoo xamante ni nii dafay xoromu ba yow mi yow mi toog di seetaan sax après da ngay mujj reetaan ba euh, dootoo xamante sax fan nga nekk parfois tamit nga gis ci loo xamante ne nii day day day génn carrément euh, ci li nga xamante ne nii ñoo ngi koy faral di gis saa njóogu bu ma reetaan dégg du ma la sa jox oma bàyyi bàyyi non lii maay ubbi rido que quand même. jërëjëf waaw moo war ah, a ah, ah, ubbi rido waaw moo war a mais mais moom mooy séddale aussi. laa ci mais mais yow boo njëkkee wax aussi rek xam na yow peut être yaa ngi. ci semaine peut être bu ngeen wutu orienté peut être li nga ci xam xamuñu ko ci. mais man euh, déjà gis saturation bi. maanaam le fait que programme yi chargé mu am mu saturé. Mm-hmm. lu saturé baaxul ci dara. mais seen traite la mhm. ni mu nekkee traite ñu def conférence mhm. kon moment la boo xam ne tey jii bari nag ñoo xam ne li doon ñàkk ci at mi yëpp bëgg nañu di ko ci récupérer léegi nag day dépendre ci acteur bi ak professionnel bi mu doon que euh, am na ki may sentir daf may dal ci moom lu bari duma ma comprendre léegi fan la war a ne wala parce que mi ngi fépp mooy ñànku par exemple mhm. dama koy gis ci yu bari léegi nag moom moo def choix boobu peut-être man bu mu ko doon conseillé dinaa ko amu defee neneen mais traite bi mu doon aussi te dina tax nit ñi jiital euh, bàyyi professionnalisme bala jiital ñu ciy am parce que dañ naan bu bu nu lii rëccee mënuñu ci am euh, leneen mais tamit lii dox la gëm naa ni lii dox la parce que mbir yi toll woon fii bu tollee fii mu doon benn industrie ba nit ñi di ci gagné c'est bien parce que ñoom ñëpp tey ji li mooy seen traite lii la leen yàlla nattoo ñoom ñi ciy liggéey di ci am dara kon tey ji ñu ci mën a am rek dañuy jël mais bu jiital xaalis bi de trop nañ jiital professionnalisme jiital seen image parce que image am na ni muy saturé rek. Mm-hmm. li nga ci doon ut mën nga ko ci ñàkk. Mm-hmm. mais man pour man c'est pour résumer c'est une bonne chose parce que ku ne war na mën a mos quoi te gars yi ñu ngi mos nag. macha allah en tout saa. moom laa bëgg. jox ko. jox ko moom moom nga waroon a njëkk a jox ko. parce que moo moom laay tëjee bàyyi ma tëjee ko. Euh, euh, man dama joxe sama xalaat tant que joxe sa xalaat. ndax li nga xam xaw ma ko ci. non non xaw ma ci lu bari maanaam ñun ñëpp a ci yem. Ah, waaw xam nga li Omar wax sànq. Mhm. bon mais ma jigéen théâtre buñ ko defee nga ree ba sonn. loolu mooy diñ ci dama bëggoon wax comme par exemple dañ ciy def yoo xam ne bokk bokku ci dañ ciy boole lu ci bokk ba sonn daal. loolu moo doon bii neex na loolu mooy li nga xamante ne bii mooy bit bi. Euh, leneen li nga xamante bi moo njëkk saturation bi parce que Omar euh, bu njëkk ba la defe naa ni la ci gars yi gën a gañe xaalis que léegi parce que boo seetee léegi euh, marché bi bu fekkente ne bi bari na ba mu ëpp la plupart ñi nga xam ne bi ñoom ñooy sponsorisé dañuy am léegi ñoom ñooy nekk roi mhm. maanaam ni ñuy nekkee roi maanaam lu ñu daan fay dañ koy wàññi parce que dañuy xam ni affaire bi. ci te na site boo xamante ni bii site bu doy waar parce que dañ naan bu nguur bañ a ràmbaay nangu. ñaareel bi li nga wax noonu. Mhm. que diw zee fii zee fii fii. loolu baaxul parce que loolu am na benn année mhm. looloo ma jotee léegi euh, Aline Mbaye mooy Aline mbay bi mu fi ñëwee parce que dama ne ko mënuma nangu jël def acteur principal ba noppi feneen mhm. loolu c'est pas possible parce que li nga xamante ni bi moo mën a ne mooy bu fekkee ne dama la jël nga nekk acteur principal fii ngay yem doo jouer feneen Mm-hmm. parce que dañ lay wax ak yow fay la cachet boo xamante ne bi cachet bu normal la buñ jàpp ni bon baax na waxtaan nañ ba juboo donc lii lañ la mën a fay da ngay accepter lii doge feneen moom tamit après mu ne ma bon suñu traite la te bon tamit duñu nangu ku ñu tënk mm-hmm. muy tamit gis-gisam mu mu nekk loo xamante ni bi tamit loo koy nangul la mu daal di dem g feneen g feneen g xam nga bu njëkk ba léegi li war a xool mooy ndax actuellement dafa bari ba noppi nekk nañ ci qualité wa illaa ba mu tuutee lañ nekk ci qualité. Mhm. c'est loolu mooy li nga xamante ne bii moom la ñu war jéem a jàngat pour man ndaxte bu njëkk ba li nga xamante ne bii moom lañ doon tourné série yi baree nii. Mhm, mhm. léegi nag mais nit ñi bëgg ko. parce que ñëpp dañ doon daw di leen seet di ko seetaani di bañ a tarde li nga xamante ne mais léegi fi mu toll nii tey buñ la doon wax ne série bi ban série moo gën a dox. sax problème day daal di am. am na nag am na yoo xam ne ñoo gën a dox. par rapport ak yeneen waa après nga indi ko top 5. donc après yi a dox après boobu nga indi ko top 5 mais en tout cas li am solo. mooy jamono jiñ toll nii daal. Mm-hmm. Euh, bari na te bari bi mu bari baaxul ci aar bi. dëgg la waaw parce que tamit niñ koy defee nii. baaxul lu ëpp tuuru. dëgg la nit ki doo ko forcer ay mbir mbir mbir mbir yoo mën na dem ba day nasaxal. li nga mm-hmm. xamante ni bi moom la ñuy wax aar bi. parce que tamit li ci am solo mooy lépp lu ñuy liggéey rek dañ ko war a def ci qualité mhm. mu nekk loo xamante ni bi qualité la mais léegi da ngay gis fi série xamante ni bi nit ña dañuy toog wax wax wax wax wax wax ba na mhm. ci même place bi la ñuy mhm. ba mu jeex donc comme ni ñu toogee rek ñu wax mi nga wax jox ma ma wax jox kii kii wax jox kii kii wax jox kii après théâtre ba jeex c'est que loolu <laughs> kenn mënut a xam lii lan la quand xam nga c'est que yooyu tamit aussi da am. vraiment. Mm-hmm. voilà léegi dem nañ sa ba dugal si artistes yi ñi nga xam ne ay way lañ leen xamee woon. comme ay Pawlish Pawlish ak mm. Ouzin Keita ñoom ñëpp dugal nañ leen ci biir série yi léegi. ñoo ngi ci biir ñi nga ànd ak ñànku mais animateurs yee ko jiite. ñun ñun ñun am na ci yu bari yoo xamante ni am na yoo animateurs yu ñun ñii am na yu ñu joué. Mm-hmm. donc man man waxuma sax que que dugal nañ ci waykat wala dugal nañ ku mën dafa am nit ko nit ñi euh, kuy seet profil. Mm-hmm. producteur buy wut profil. man pour man profil bi fu mu nekk rek war nga ko mën a jël. Mm-hmm. man man lool lool loolu laa wax parce que mën na nekk artiste plein profil ba nu soxla ci moom nekkul ci moom foog ñu jëli keneen loolu aussi foog ñu nangul ko ñeneen ñi parce que des fois damay dégg ci seen débat yi ñuy wax ne ñi ci bokkul sax ñu ngi ci kii animateurs yi ñëpp a ngi ci biir théâtre bi mais ku ci nekk profil ba nga soxla yaa xam léegi nag euh, li Omar wax sànq man loolu laa doon bëgg wax seen trait la d'accord nañu mais man Euh, consommateur bi la ñuy lor xam nga lu tax parce que mënoo def sa produit mënoo togg ak kenn ku la ci nettali yu séquence bu yegg. Mhm. parce que bu heure bi jotee nga ne maa ngi jàpp télé bii bëgg jàpp télé bëgg kalandoo série yëpp. loolu finalement dootoo dootoo seetaan li nga bëgg. Mhm. wala boo nga tànn ci benn rek. seetaan li ci des nga dem kal ko ci. Euh, YouTube bi wala yooyu. Mhm. loolu rek moo mën a nekk mais ñoom seen perte la loolu. parce que aussi heure ba nu bëgg nit ñi seetaan ko duñ ko ko seetaan mais après lañ koy consommer parfois da gis koo xam dafay am artiste am ci jëmmi boppam mu seetaan ko ci série bi daf bu déggee ni mi ngi seetaan rek dafay dem fépp di fa see dof nag waaw moom moom fépp mooy la fa la moom mooy dama bala doo xam personnage la voilà fii mu nekk fa dof bu yor xiir fee mu nekk fa beneen dof fee mu nekk fa dof bu kii fii muy nen fee muy kii ah, eh, waaye xoolal am na boo xam ne yow defoon nga ko fi muy sëriñ ngundu <laughs> eh, boobu nga defoon euh, te nga nekk ci sëriñ kii nekk ci euh, sa bëgg galaay mi ngi mooy def mais boobu euh, këmax voilà mais boobu nit dama daan yàqamti heure bi am ba ma seetaan ko parce que loolu da nga ci am loo xam ne am am na ci benn touche boo xam ne lu bees loo xam ne amul feneen loolu sentir naa ko ci li muy wax sentir naa ko ah, wax loo pour ay merci beaucoup lu bari. mais bi mu ko suivre am na particularité par rapport aux autres mooy Kouthia Taïfin. Mm. merci beaucoup. Ah, Kouthia ah. Taïfin bi neex na parce indi na leneen lu gars yi indi maanaam man waaw indi na leneen waaw Koudia même daaw bi defoon na kii. waaw leneen euh, gars yi indiwul laa ko. c'est intéressant boo koy gëstoo après la ko corona dab. <laughs> waaw kay euh, ah, corona ko yàqal kii bi di nga am koo xam ne yow ci ci sketch yi lu muy bari bari dina am koo xam ne mais nee xoola euh, day am yow film boo xam ne yow da koy suivre sa bopp xam nga doo mën a di fii tapp fii tapp fii man ñànku man wu tàng ñàkk duma comprendre man li muy wax. comprendre li muy wax ndax day def affaire yu neex sax. waaw dafa bari dafa ku nekk lay dem. kaaw ñànku ak ak si di moom ñoom ku nekk da nga adopté benn style. waaw kay mais dama télé boo jàpp même. même nit yi léegi même ñoom ñoom kii ñoom Tafa ak kii Tafa ak daal benn équipe laa gis nii da ngay gis ne joué wuñu lu bari muy équipe ndogu li te loolu defe naa depuis depuis ñu daan joué saa man du ma leen gis ci leneen xaw ma nag ndax. dañuy defar ah, wala dara loolu moom dama leen di gis waa fii ñoom bu nu defee nga am nga am groupe boobu. waaw ñoom gisuma leen feneen en fait ci Walfadjri kese avantage waaw mais. diw fii damay bañ a tudde tudd naa ñàkk boo tuddee <laughs> na ñoo xam ne moom sëpp munul ne man am na koo xam ne man moom rek laa moom laay opté rek man di mm, mm, bi sëriñ ngund bi amee sëriñ boo xam ne dama koy mën bi ma ba ci mm. na boo xam ne moom rek moom moo ma ci neex loolu day am leer d'accord looy tëjee ngi noonu xam naa rek dama leen di jox euh, dig dajee euh, altine ak jàmm ci ci ci beneen bëgg la merci beaucoup euh, merci ma jigéen.